ñu ñëwoon ak yéen tey jii ci li nga xam ne moo xew ci jamono muy ganek àdduna ak yonente bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy ngën gi mbindéef di ku yàlla yónni ci jaam ñi doxal ci kawam yërmande ngir mu wàcce ko ci mboole mbindéef yi ku mel noonu nag su gane àddunaam jotee ñépp xam nañ ko ci lislaam mboolem jullit yi dañ koy fàttaliku di ci tëbb ci moom di julli ci moom di fàttaliku ay njàngaleem ak i jikkoom ak i nam daan yare doomu aadama yi ndax suñuy wax mawlidu nabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dara du ci gën a yell dundalaat lislaam ci xol yi ñu xool yenente bi moom ci taarix kañ la ñëw àdduna bi muy ñëw lu mu fi fekk fu mu jaar ba yegg si fii loolu suñ koy tënk dañu naan yonent bi de bi muy ñëw sunu boroom mi ngi ko yónni ci nit woo xam ne mënuñoo jàng mënuñoo bind amuñu tamit lu ñuy tuddee civilisation mbaa xadaara yàlla tànn ko ci biir ñooñu indi ko ngir mu tëj yonente yi tëj gi nag mooy naka jëkk sunu boroom bi mu bindee àdduna musta deñ di yónni ay yonent ngir ñu gindi nit ñi ndax doomu aadama yi ñoo leen soxla ngir ñu tegal leen ci yoon ak li tax yàlla bind leen nit nit ki mënu koo xamal boppam ni mën a def rek yàlla mi ko bind am lu mu bëgg ci moom waajal na ñoo xam ne ñoom lay yónni ñu dox digganteem ak nit ñi ci wax leen lu yàlla bëgg ak lu muy bañ lan mooy jikko ju rafet ak lan mooy lu ñaaw lu ñu war a moytu ak lu ñu war a jàpp fu ñu jëm ëllëg ak sunu dund gi luñ koy doyee ak ginnaaw dund gi lu ci topp ci àjjana ak sawara walla iyaazu billah kon nag yonente bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw mottali yonente yooyu bi mottalee yooyu yàlla tëje ci moom lool yi nga xam ne ginnaawam yàlla yónni waatut keneen moom moo ci mujj mu daal di koy jox alquranul karim alquran nag di ab leetar boo xam ne sunu boroom moom la wax waxeek doomu aadama yi wax kook mbindeef yi wax kook junne yi mooy xam mbindeef yi mooy junne yi ak nit ñi mboolem ñépp ñi yàlla bind yonente bi sallallahu alayhi wa si leeram googi la leen bind jox ko alquran muy leer ci mbindeef yi